ku yokkul yaa wàññi nee na te mbirum sëriñ bi moom dañ koo war a yokk dañ koo war a wone sëriñ bi nee na nanu takk sunu fit nag te dox nag nee na dara desatu fi lu dul nag liggéeyal ko wax ci bari na na doy nag nanu way way bañ fee nekk di tardé. nee na te bañ fee nekk di tardé. nee dafa am loo xam ni. daf ñuy tardé rek. nanu ne ci liggéey nee na nanu ne ci liggéeyu Serigne tubaab bi. waajal leen 17 avril. nanu waajal 17 avril. na fépp yëngu na fépp yëngu. Mbour Mbour. Dakar Thiès Ndar Tamba. nee na na fépp yëngu. nee na nanu wane ne noo am na nanu wane ne noo ne ci ndigal noo am ndigal. nee na wax ji foofu rek la ne. bég naa ci yéen nag. sëriñ bi nee na bég na ci ñun. bég naa mbégte moo bi nee na bég na mbégte moo xam ni. seereelu ma ko kudul nee na seereelu ko kudul sëriñ Tuubaa. te moom de wóor na bég na. nee na te wóor na ko ni moom bég na. jërëjëf. man la wóor ni nee na moom la wóor ni sëriñ bi bég na. a bëgg lu baax. nee na ak a bëgg lu baax. ak bëgg fonk ak nee na ak fonk ab taalibeem. kookoo xam lu nee na kookoo xam li dig taalibe. wan nañu ko. nee na wan nañu ko. àndandoog naa naa nun. jëfe ko jëfe na ko. na ko wax na ko. am njàngaleem nee na am njàngaleem day moom leer na nañ. jaxasoowul nee na jaxasoowul ci sunuy bopp. ci lim nu tegoon rek la ñu ne. baas bii tey. baas bii tey ku ko ronu. xam ne bu fi nekkoon it. xam ne bu fi nekkoon it. li fi ne du du soppiku. bu nee na bu nu fekkaatoon fii. wallaay du nu soppi toogaay. wallaay du nu fekk du nu soppi toogaay. waa waa Géejawaay. sëriñ bi nee na kon nag waa Géejawaay. sëriñ Xaadim. sëriñ na am na.